la ilaha illallah la ilaha illallah bismillahi rahmaani barakaatu ñu ngi nuyu mbokk yi ñuy teewlu yëpp si turu jëwriñu Cheikh Rafal di sëriñ Amdi Fall mu sëriñ Modou Mbenda wala sunu borom mu guddal aw fanam te wéral ay cëram naa lii mu am si liggéeyub Serigne Touba bi ak Cheikh maamam mu def si lu kawe njortam te ànd koog taalibe yépp di jottali am nuyoo bàyyi ko si moom jëm si jëwriñam di Cheikh Modou Mountakha di ko ñaanal yàlla téyel nu fanam bi ak wéram gi ba yéene jii mu am si liggéeyub Serigne bi mu def si lu kawe njortam di nuyu mboolem njabootug Serigne Touba gi nga xam ne ñoo topp si moom ànd ak moom waaye di nuyu mbooleem it njaboot gi nga xam ne ñoo nekk si ginnaawam di njabootug Cheikh Ibrahima Fall. jottali ay cant ak ay ngërëm yoo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem si taxaw gi ñu taxaw liggéey bi nga xam ne naka jekk rek moom la ñu baaxoo muy ndigal yi jóge kër sëñ di tàbb fii si kër maam Cheikh Ibrahima Fall te ñu àndandoo di ko jëfe ni ko sëriñ bëggee ah, di nuyu jotaay bii ñu teew nag ñëpp gis nañ ko ñuy nuyu sëriñ Cheikh Coro mi ñu toogal di ko siyaare bu baax di nuyu njabootam gi fi nekk yëpp si turu sëriñ Assane mi nga xam ne. mom lañu andal, muy serigne Assane Fall mom Cheikh Modou Moussa Fall euh mom lañu andal muy kilifa ak jotaay bi mu ñew ci ndigalul ay kilifam di serigne Saliou Fall Fat Saw ak ñi nga xamne ne sëriñ Amdi Fall mom serigne Modou Mbenda and ak serigne Baye serigne ousmane Fall and ak serigne Baye Ndam and ak serigne mam Cheikh Fall Khady fay mu serigne mu mu sëriñ Assane and ak serigne Bada Fall mu mam, dam Saliou and ak sëriñ Abdoulahad Fall euh, mu serigne Modou mam ak serigne Fallou Ndiam.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 ci li nga xamne moy bëgguk sëriñ bi dem digal ko cheikh sëriñ sëriñ Amdi Fall mom sëriñ Modou Mbenda mo ngi njabootug maam Cheikh Rafal gep si euh, kaw bëgguk sëriñ bi nak waxtaan wi weesuwul bépp pexe bu nu mëna lal ba li di bëgguk sëriñ bi si dëkk bi mom wet gam sa mëna taxaw wet gam sa mëna japp gannaaw ba yalla dogalé mu doon jitt jité ay mbolo bo xamne ay maga nga ci ay ndaw nga ci ay goor nga ci ay jigen nga ci té bari ño xamne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 ñu xamne jall nang na li ci dess nak muy suñu kanam ñu ini deggmal lolé fexé ba li ñu ñor dal moy li serigne Touba Cheikh Modou Muntaxa am ko si dekk bi lolé moy sunu tank yi te mel na ni am nañ ci lo xamne ne la xamna suñu joxé serigne bi si bopam mom dana ci dana léral li ci jara léral lépp ñi ngi nuyu ñëpp tey gërëm ñëpp di assalamu alaykum wa rahmatullahi barakaatu. di ñaanal Cheikh mohammed Muntaxa sunu borom yagal ko fi lolé tam wér di ñaanal kilifa diine yi ne ci rew mi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 ak wat gi ñun ñëpp la war mais rawat nañ ku melni man ndax ni ma ko waxe ci samay kaddu yi ko jitu dekk bo xamanteni bi mi nek ab village ki señ fallu njëkk def chef de village su dekk bi Baye Abdou Bousso mon moy sama mam kon japp na ni bu ñu ñëwaatee ba 2024 Cheikh Mamadou Mountakha di jël ay ndigal diko tok ci loxo Baye Fall ñu sam war moy dekk bi man suma leen mënon na jox li ngeen do sa gas wal sama man koy def kon japp na ni señ Ousseynou ak señ Assane kaddu yi ak tank yi reyna ci ñun trop te japp nañ ni li ngeen def lo rek la kilifa wara def mooy sëñ daam soo soore muy ñi mokk ci kuréel gi yëpp maa ngi leen xamal ne daal mbooleem kuy manifesté wu ci biir Touba ak ko wër jàpp leen ne bu boolee Ousmane Sonko ci bopp mit Ousmane Sonko boole bu ko ci boppam Ousmane Sonko li mu séq mooy Touba mooy wormaal ko jox ko cër heure bu ñëwee taxaw ci kanamu kilifaam yi muy Cheikh mun Mountakha ba ci kilifa gu mu mën a doon li mu koy wax diine la am amul ëpp diine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 kon japp na li ngeen def ñun ngeen koy defal ñun tamit li ñu def yeen lañ koy defal ñun nak mo mënta ñak nek fepp rek kon ma ngi dal li moom sama kàddu daal waaw loolu mo <laughs> loolu moom yéene la waye waaye xam naa du nima ko nima ko nima ko mëna waxe rek ñun mom suñu digënté ak Cheikh mahamoudou Mountakha euh, digënté talibé ak sëriñ digënté doom ak baay ko xamanteni bu ne la won bàyyi li nga nek nga wuy si ma bu fekkoon ni da ngay sangu man nga bañu sol yere dem na jadd ci kanamam koku xalaatu seq ak mom lo xamanteni ni dox digal lolou su fukki xel juroom juróom xalaatu ko ñun amuñ lu wess Cheikh Mamadou Mountakha mhm. li ñu seq ak mom moy ñaanal ko suñu borom mu yagg fi lolou dëgër te xam ne sagub l'islam la sagub yoonu murid la mhm. loolu lañ seq kilifa diine fi nek yépp te suñu bunt ci seigne touba yi muy seigne cheikh onam seigne fallu xamna ni seigne sëñ la yaakaar seigne Aboo Cheikh Mamadou Mountakha la yaakaar kon Touba mom genn kilifa fi am te nangu nañ ko diko ñaanal suñu borom mu yagg fi mhm. lolou mom ku ci yoon dara it yaakaar pen perdu la